سيدنا ونبينا محمد قر العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن هذا القرآن يهدي التي هي بسر المؤمنين ونكني دي ربنا إن هذا القرآن لك تيري بتد بي بسر لبي du màggat xulli yëpp te dara du ko folli yahdi day gindi bu mm-hmm. mu jëm illati hiya aqaw illati jëm ca la gën a baax gën a jub gën a normal gën a noobul fa la jëmee nit la gën a noobul fa la jëmee nit yamu tari te kat day bëggal jullit ñi rek ngay bëgg rek bu dégg bëccëg di bëgg rek gis nga boo nekkee ci alquran Mhm. da ngay taxaw xol bu sedd buy xam nga lu tax. Mhm. lu am mu doy la bu njëkkee xam ne yàlla la yàlla amee xam ne yàlla la may doo xeeb bu ñàkk. Mhm. bu njëkkee xam ne yàlla moo la xëy doo ajaanee ki am. dëgg la alxuraan dañu noonu. bu ci bësul moo ko ñëw. sa xol dafay laab sa xol day sell ngay lekk suur naan man ci dina xam ne yaa ko xam ne nga la ko jox noo mel moom la jël yóbbu la fa nga xam ne mooy marta bay gën ko yëg sax nag doo bi tey wuy na borom léegi bi ngay bi ko wëy dafa ko ma téléphoné bu nekk Dakar tudd Babacar Cissé xamantewul mu dëkk Daaru Salaam Babacar Cissé mu ne ma xanaa dëgg na ci programme ma ne ko ci Musaara mu ne ma Musaara bi neex na di léegi yal na continué ba ba pare. tàmbalee ba mu ne ma neex na ma ne ko yal na gën a neex ba ñu pare. bi jaay Rasulillah fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin kon ku bëgg a defeewu dama ci alquran ku bëgg a defeewu ci biir ak ci biti dama ci alquran. mu bëggoon incha allah bala ñuy def ñaan bala ñuy ñaan ñu jàng faatiha benn yoon xul wallaahu aar fukki yoon ak benn yéene ko Papa Diouf Papa Diouf xam nga li tax